ñu ngi nekk di déclenché waat seen yenn dossiers yi ñu amoon. loolu danañ ci ñëw fin bi man bëri na nit yu ma sollicité jox ma ay dossiers expliqué ma ay contentieux yu ñu am ñu ñu jaay doole nangu seen bien. Mm-hmm. loolu danañ ci ñëw fin bi incha allah. maanaam conc gi daal daf mel ni teggeeku na. teggeeku na mënees nañu am yaakaar que ni. a am bu baax ni yëf yi dana jaar yoon. jamono ji mhm. alors euh, Cheikh bi euh, suivre nga li nga xamante ni moo di sortie bi Ousmane Sonko am Ousmane Sonko en mhm. tant que président parti Pastef. Mhm. donc euh, dajaloo na ak ay militants sympathisants ak cadres également du parti. ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di ëllëgu parti bi mais ci boobu lay waxtaan également nañu ko defee woon foofee ca hôtel Azalai ñëwaat gisee ñoom. ci seen biir dafa am kàddu yi nga xamante ni également daf ko fa jibal mu annoncé ni dina effectuer ab tournée dem seeti ji ay naataangoom ya nekk euh, ca yenn dëkk yu mel ni Niger mhm. Mali et autres mais li jaaxal ni ci mooy dafa nekk dëkk yu nga xam yi mu choisir plutôt actuellement ay putsch ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko mhm. jiite mhm. léegi loolu ban déggil nañ ci mun a am ak également Ousmane Sonko bu fay dem dafay dem en tant que quoi en tant que premier ministre wala en tant que président du parti ok da déjà réunion bi jar na taxaw tuuti parce que gis nañ format bi ni mu amee ñu bëri wax nañ ci source yu claire et ak li image wane que ñëwu fa avec les moyens de l'État moo xam ci otoom moo xam ci sécurité gis nga garde yi ko daan toog ci campagne te kenn gisatu leen woon ñoom lañ gisaat keroog loolu rupture la dinañ ko tudd ndax ñeneen daan nañ def leneen loolu nag message bu mu jox waaw loolu nag message bu mu jox ñi ànd ak moom les directeurs yi mu fal j'espère ki kenn du ci dem meetingu Pastef ak oto ak oto état bi j'espère que benn ministre du ci dem réunion politique ak oto état bi loolu rupture la moom mu ngi leen di woon yoon bi j'espère que dinañ ko suivre léegi nag. kon dina bëri ñuy dem ci meeting ak yeneen regroupement ak di dox ak temps. Ah, <laughs> waaw ñu jël rek. moom kañ bu ñu ko defee moom mu doon rupture. bañ leen fale la ñuy doog am waaw waaw euh, nañu luwee oto wala ñu woo Itch wala Yango. waaw xam nga bu ñu la falee minute sax tu es garant lebal benn oto. bu def pré tamit association de seen kaw nag. dinañ ah, ñu may jàmm. na ñu muy jëriñ loolu moom dinañ ci ñëw mën ak yow. waaw léegi nag. problème bi sax gëm naan du nekk problème parce que kuñ fal yenn poste yi am nga garantie boo defee prêt moom gars yi dana la lebal oto. Mhm. léegi. à mhm. réunion boobu Ousmane Sonko dafa pare sol benn mbubb muy mbubb leader politique boo xam ne envergure panafricain la envergure internationale la. Mhm. mooy leader politique bi nga xam ne oraam transcendé na frontières yi ay sénégalais ay africain kay bëggee ca Mali ca Burkina ca Niger. ca feneen ak feneen ay nit a nga koy waxtaanee ca ci ay plateau mi ngi inspiré des leaders politiques mm-hmm. li envergure panafricain boobu noonu ak leader international boobu noonu mu taxawee mm-hmm. lay sol mbubb googu ngir def benn tournée ci les pays du Sahel boo ci boolee Guinée mu doon mun nga ne de manière générale les pays dirigés par des jeunes militaires soo ko doon tënk mun nga ne les pays non alignés de la sous-région bokkuñ CEDEAO génn nañ fa ay jeunes militaires ko diriger ñu indi rupture ci seen relation ak France am position bu ñu am mais seen discours réeroowut ak discours Ousmane Sonko mooy discours souverainiste boobu discours panafricain boobu léegi boo xoolee ci beneen côté bi président Diomaye moom mi ngi def tournée ci pays CEDEAO yi su su premier ministre wala le leader politique Ousmane Sonko dafay tourner sur les pays du Sahel bu ñu paree loolu ñu togg. dañ koy yàq ci benn cin su ma leen doon xelal dañuy créer conférence internationale fii dakaar pour réconcilier les pays du Sahel avec les pays de la CEDEAO mooy dakaar dafay nekk pont bi relier réew yi nekk biir CEDEAO ak pays yi nga xam ne mooy organisation du Sahel tay junte militaire dirigée. c'est ce qui se hmm, bu dee ci lañ nekk ci lay encourage bu dee nekkuñ ci woon maa ngi leen koy xelal. à partir de ce moment mun nga ko tuddee sax l'initiative de Dakar. Mm. pour réconcilier sous-région bi. parce que dafa am benn leadership bu Ousmane Sonko di incarné au niveau international boo xam ne président Diomaye mun na ko jëriñoo ngir marqué moom empreinte am ci scène internationale bi léegi nag xalaatal penn nga tëgg conférence internationale boo xam ne ñoom Assimi Goïta ñoom Ibrahima Traoré la gaada de njool mi rek nu mu tuddati. Doumbouya ak ñoom ñii ñëpp daje fi. ku nekk wax li la metti ñu trouver ay accord am benn départ bu baax loolu da nga am benn entrée ci seen internationale boo xam ne kéemaan la à partir de ce moment nag nga nga imposer sa leadership ci yeneen sous région wu continent bi waaye feneen ak feneen donc man dama gëm ni l'Afrique est à l'écoute du Sénégal maanaam ah Afrique wala àddina mooy déglu Sénégal fi mu toll. mais d'accord dans ce cas-là su ma la comprendre bu baax da ciy dem en tant que premier ministre. Mm-hmm. mais plus mais plus ci casquette le leader politique bi nga xam ne population ñenn ci population yooyu dañuy identifier seen bopp ci discours boobu boo xoolee keroog digganteem ak Doumbouya ni mu rataxee da ngay gis ñooñu. dañuy identifier seen bopp ci discours Sonko mun nañ bañ a d'accord ci point yëpp léegi nag loolu am na ñu mu neexul mooy beneen diaspora bi nga xam ni soi-disant nan laa koy waxee sa entre guillemets waaye pro Russie mooy les Nathalie Yamb et autres nga xam ni ñoom seen agenda agenda wu Russie la ñoom yoruñu seen agenda bopp ñoom bëgg-bëgg Russie ñoom dëgg la souverainisme la ñuy xeex rupture pour la France waaye cordon ombilical bi dañ bëgg buñ ko daggee ci France branché ko ci Russie ñooñu Sonko arrangé wu leen. mais côté légitimité. buñ ci mmh. taxawee tuuti. Mmh. en c'est la question que tout le monde se pose. Mhm. pourquoi tey jii président Diomaye Faye bi nga xamante ni dañ ko fal mu accéder au pouvoir. am vraiment légitimité yëpp pour diriger et pour gouverner. Mhm. tey ñoom euh, ñu choisir ku mel ne Ousmane Sonko tey jii moom muy Jomaay Jomaay di Sonko. mu mhm. choisir tey effectuer ay visitam ci ñi nga xamante ni euh, ñooñu anam ba ñu jëlee pouvoir bi. Mhm. dafa différent lool ak ñun li ñu baaxoo di gis ak également ñun li ñu tàmmee di fal suñu ay suñu ay suñu ay président. kon loolu lu ñu mel si gisee ñenn ñi en quelque sorte c'est comme si ñoom dañuy approuver ñee anam ba ñuy accéder ñu organiser élection daf nga interogation bu am solo léegi nag loolooy justifier demi Ousmane Sonko bi le leader politique pour éviter de vexer les pays de la CEDEAO xam nga bu Diomaye demoon mun nañu le président du Sénégal moo cautionné coup d'état am na ñuy wax ne le président du Sénégal mooy dem encourager pays yi nga xam ne dañu défier charte yi ñu signé woon CEDEAO fële le leader politique mooy dem. yaa ngi comprendre. Mhm. c'est moins impactant te plus tamit mooy gën a gàtt polémique. en même temps euh, en quelque sorte c'est aussi lu ni mel dafay protéger bu baax a baax. image protéger l'image du président Diomaye ouais. donc foofu Ousmane Sonko leaderu Diomaye la leader politique mooy dem. moo tax da ngay comprendre un peu communiqué bi Pastef foo ko def pas l'état du Sénégal donc c'était bien réfléchi. Mhm. te ñooñu Ousmane la xam. Ousmane la ñuy identifier seen discours ci moom moo tax ma gis ni euh, stratégie bi mooy bàyyil le président Diomaye di le président de la République wax ak les chefs d'État yi ñu reconnaître le président du parti Pastef Ousmane Sonko le leader politique dem wax ak ñee nga xam ni xëy na euh, c'est des militaire yu nekk ci boppu réew mi mais am benn discours boo xam ni réeróowul trop ak discours wu. finalité bi mun na nekk euh, li nga mooy ñu yàq ko médiation mooy médiation comme li ko président Diomaye fàttalee woon ci discours am bi mooy cheminer ensemble avec les pays du Sahel. Hmm. loolu Sénégal bu ko réussir dafay marqué waat empreinte am dafay delluwaat ci ordre diplomatique bi nekkoon mooy leader lañ ci sous-région bi. conflit yu bëri ci sous région bi Sénégal moo def médiation bi ko réglé. Macky Sall en tant que président de l'Union africaine dafa dox mhm. euh, dafa euh, gérer bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di rôle rôle mhm. ak également lépp lu nga xamante ni confié woon nañ ko comme tâche mu bokkoon ci tamit euh, mu dam dox bu baax a baax diggante yi la preuve on se rappelle même ci guerre Russie bi bi mu ci décision di dem di seeti ji Poutine mhm. xawoon na inquiété ñenn ñi ndax tey jii Ousmane Sonko dafa nekk a bu baax a baax diggante yi ñu am ñun entre hmm. pays africain waaw xam nga Ousmane Sonko mun nga ne à partir de Oram mën na réussir beaucoup de choses ci continent bi mooy réeróo bi am mun na nekk maanaam Sénégal de manière générale mun na nekk trade ñëw bi relier pays africains yi nga xam dañu réeroo depuis un bon bout de temps mooy discours am ak engagement am. ak vision bi mu prôné dafa bëri leader africain wala ñu def coup d'état yi di identifier wu seen bopp ci discours boobu donc moom ak position wu Sénégal ci wàllum diplomatie mun nañ faciliter beaucoup de choses en fait Sénégal historiquement rôle am mosul nekk gauche wala droite juste milieu la fexe bay jubale gauche ak droite loolu mën nga ne Macky Sall moo ko xawoon rompre année yi passé jël position yoo xam ne Sénégal ute na ak position histo euh, maanaam historique yi mu daan am donc man dama gëm ne lii mooy rôlu Sénégal rôlu Sénégal du valider euh, ñuy dal ci kaw Mali ñuy embargo Mali wala Guinée wala beneen réew mais fexe ba réew yi bëgg a embargo réew yooyu juboo ak réew yi leen ko bëgg def parce que Sénégal réewu Sahel yi dañu essentiel trop pour suñu économie pays yi nga xam ne ñoo composé les pays du Sahel ñun mënuñu dem sans Guinée suñu su ndox yëpp Guinée lay puiser wu donc nous sommes condamnés à cheminer ensemble donc leadership am boobu mun na ci jouer lu bëri bëri bëri bëri bëri hmm. donc man daal gëm naa ne àddina moo nekk di leen déglu bu baax la approche bu baax la bu kii jaaree gauche kii droite nu dajee boole li am yàq ko parlant toujours d'Ousmane Sonko xam nga ni démissionné na foofee ca mairie bu Ziguinchor. Mhm. et bi mu démissionné nag ki nga xamante ni moom moo di première adjointe bi. Eh, mhm. di Aïda Bodian. Mhm. Euh, euh, moom moo ko wutu foofee ca mairie bu Ziguinchor na ma ko defee également il a été suivi par Birame Souleye Diop foofee ca Thiès Nord. Euh, tey également ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Tidiane Dieye tamit suivre na ko foofee ca Ziguinchor. ban gis-gis nga am ci boobu la